képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi di Mbacke Kadior TV ci te yow sa kër bi tax ay bu dégg ba ca couvre boo tëralee nit ñi ñi ci mbedd mi taxawal nga teg ko fan ku am ndey ku amul ndey ban askan nga mos a gis ci këru àddina yonente yi yàlla mos a yónni ci kaw suuf yonente yi ñëw ànd ak buur ya bàyyi askan bi mosul am mosul ñaan ba ci kii imaam imaam kilifa yi diine imaam ndaw jot na ci wàllam ba ki dem te bu yaakaar ne du la laal mën na laa laal wala mu laal sa njaboot wala mu laal sa taal kon nag jot jot na élection yu fi toogee la la ko fi dik xam nañ ko fi toogee xam nañ ko lu ko fal lu toj toj bu nekk waa kër moom ko ne moom fat leen ba ne moom am na yoo xam ne maa ci nekk sama conco Ousmane Sonko di militaire nit ñi bëgg ko dem élection Ousmane Sonko du n'importe qui ah Ousmane Sonko dafa dem ay élection def loo xam ne c'est une première fois dans l'histoire créé parti ñu dàq Ousmane Sonko dañ koy rajo barki dem mu nekk impôt Ousmane Sonko doon Ousmane Sonko boobu moom Ousmane Sonko bête noire am na ko baax saa yu koy gën a daaneel moom mooy dugg ci camp Macky Sall na bàyyi Ousmane Sonko muy yow demal nga dégg li ñuy xaar ci yow Macky Sall mooy Covid 19 bii ak lu Sénégal yi lekk ak lu ñu naan ak a wàññi suñu courant bi loolu la ñuy xaar ci yow ah kenn yarloo la dégg nga dañ laa yorloo yoral réew mi te bàyyi amalgame yi ñuy indil Ousmane Sonko nga bàyyi ko dem opposé wu soo amee doole ñoo xam ne sa justice bi nga yaakaar. bu mooy ñoom Mahmoud Sarr ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñi nga xam ne ñu veillé nëbbuñ ko kenn ñooñu nekk ci wetam mu làq yi xam ne a gaaw a féete kaw bii am ñu moom waaw woote yi ñun Sénégal yëpp ñoo gisee comme comme ni ñu ko defee Babacar Sarr noonu lañ ma ko defee defe ko yeneen di ay appel téléphone di leen jéem a xamal comme luñ ci jum ñun nag li ñu leen wax duñ ko wuyoo par téléphone képp koo xam ne daal ñun intéressé nañ la boo ñu jotee convocation dañu wis loo ñu laaj ñene ci tontu waaye daal ñu xam ne dugg ñu xamal suñu maam barki démb ak barki at démb balu gannaaw rëy rek balu kanam moo leen rey kon nag ñun Macky Sall lu mu woote pare nañ pour wuy suñu incha allah convoqué nañu assemblée euh, jeudi pour la réunion parlementaire léegi bu fekkee day def président Sonko daal li muy waaj ak li muy li mu bëgg a mu ngi ci suñu kanam lépp la nekk lépp jéego